El Hadji Malick Ndiaye moom yore nag communication bu parti Pastef bile mi ngi wax ni nag benn dawalkatu Jakarta rek moo ko daal di gis mu dugg ci pharmacie bi ba mu fa duggee nag da ko daal di xaar ba mu génn ci noonee nag la ko daal di woo mu daal di ñëw nag jege ko di reetaan ak moom daal di yëkkati nag benn billet dix mille francs daal di ko koy jox di ko nag waxal ñu rek Ousmane Sonko ni ko nag ñun ndawu Jakarta maa ni lii nag moom mooy suñu participation maanaam lii dimbalee ci noone sax ma ngay wax ni xaarul sax nag mu daal di koy la ci saa si rek dafa daal di rek wan ko ginnaaw dem rek continuer liggéeyam moom la mu xalaat rek mooy ci xelam moom El Malick ma ngay wax ni yàlla bu yàlla tas yaakaar ci atum 2024 bi li ñu jëm